Assalamu alaykum, askanu Sénégal message que may def nak est adressé à toute la jeunesse du pays mais particulièrement à tous les jeunes de Pastef les patriotes ñi nga xamné ne ñu ngi ci composante bi nga mouvement des jeunes le JPS national Mo xam da nga bokku ci JPS ben département wala JPS ben commune wala ngay nek militant simple mais des jeunes. l'heure et grave damay fàttali tuuti ci histoire pour ngeen comprendre li ma bëgg a wax mooy le 17 janvier 1961 dafa am fële ci Congo des Grands Lacs muy république démocratique du Congo boobu ñu koy wax beneen tour la amoon après mu tudd Zaïre ku ñuy wax Patrice Lumumba le 17 janvier 1961 boobu askanam dañu toog seetaan. benn groupuscule bu ndaw ay puissance étrangère ngemb leen ñu sacrifié ko torturé ko toroxal ko ray ko tay ji may wax ak yeen 62 ans après lolu Congo mu ngi bok ci 5 dëkk yi gëna ndol ci aduna bi est-ce que xam ngeen na ndaw yu nekk Congo ku ci nekk ci ñom muy jeune ya fa nekk li ngay am ci revenu par jour matul 2 dollars manam danaka matul 1000 francs est-ce que xam ngeen ne Congo ginnaaw loolu bi mu amee am na fa ay guerre civile yu dul jeex am na guerre bu amoon 1997 amoon na fa guerre bu amoon ci année 2005 yi diggante guerre yooyu noonu yëpp li ëpp ci 10 million ci population bi déplacé wu nañ ay centaines de milliers de nit ñàkk ci seen bakkan ba léegi nii may wax a génn Congo am na benn mouvement bu ñu koy wax mouvement m boo xam ne mouvement rebelle la li muy rey ci ay bakkan li muy créer ci ay jéey ci réew mi kenn xamul nu mu toll. loolu exemple bu leer la dëkk boobu noonu bi ñu tollee ci un moment de l'histoire xeex bi ñu war a xeex xeexuñu ko tey lu mu leen jural ci ay jafe-jafe ak ci ay loraange dëkk boobu ngay dem nga dem Kivu wala nga dem Katanga li fa nekk ci ay mine moo xam cuivre la moo xam cobalt la moo xam coltan la xale yi koy gas dañ leen di forcer ñu koy gas ba dañuy ñàkk seen bakkan ci condition yu difficile bu ñu arriéré tuuti ci histoire ñu dellu Burkina le 15 octobre 1987 Thomas Sankara biwa Burkina nangué ben nit sacrifié ko mom ak ay quelques gradés de l'armée mais ay puissance étrangère ngemb leen lan la len djural tay Burkina lu 40 du territoire bi nekkul ci loxo état bi Burkina il na ci mun nañ ne moy 164e pays bi sont a ci bi mais misal bi ñu gëna a moy Sénégal 17 décembre 1962 combat yu ñu waroon xeex pour Mamadou Dia projet bi mu doon porté da Pastef di ko porté tey nga xam ne projet la boo xam ne da doon tinki Sénégal ci ñi koy noot ci ay force yu nekk ci biir réew mi ak si bitim réew projet boo xam ne da doon tabax une république boo xam ne dafa méngoog réew mi seeni bëgg-bëgg mais république boo xam ne dafay jubal bi sénégalais yi toogee seetaan lu mu jural tey Sénégal mooy classe politique bi ñu am nii ñun ñëpp xam nañ ne dëkk bi doxul ñun ñi ay jeunes question bi ñu leen di posé nag mooy est-ce que ñun dañuy nangu suñu avenir ñu tayle ko quelque personnes yoo xam ne réussir nañ ay concours nekk ay magistrat def quinze ba vingt ans ci carrière parce que dañu bëgg am promotion parce que dañ leen dig tele poste parce que lan am na ku ñu wax ak ci suuf am na lu ñu jox ñun ñu war a toog suñu avenir ñu sacrifier ko. maman bi dañu wara sacrifier suñu petit plaisir suma né petit plaisir moy caayin bi ngay xaar ci 15 h 16 h nelaw bëccëg bi nga don def composante bi nga xamné moy gérer mouvement des jeunes du JPS national mo xam da nga bok ci GPS ben département wala GPS ben commune wala ngay nek militant simple mais des jeune l'heure est grave damay fàttali ci virage boo xam ne dañuy libérer réew mi ba faw wala ñu des ci moomu njàm ba faw exemple bi gën a patent mooy man dama jàng ba réussir am samay diplôme réussir concours di liggéeyee tribunal est-ce que xam ngeen am na sama collègue boo xam ne moo ma gën a ancien te tey mu bokk si ñi nga xam ne ñoo yoroon audience chambre criminelle dossier bii mais moom wul àttewaanul ma leeral loolu mais moom elle incarnait cette république bi mu génnee république bi débaru débrouillé na maanaam góorgóorlu na farlu na ba protéger ay juge ak ay procureur mais moom kenn protéger wu ko te muy jigéen bu vulnérable ba tey ay otoom ay nit saccagé nañu ko maa ngi koy massawu exemple la pour wax leen ne république amul fii est-ce que di ngeen nangu waxu aji Sarr muy ndaw su tekkiwul dara ñu jël ko teg ko ci kaw waxu benn officier wu gendarmerie boo xam ne dafa jàng ba am ay lijaasam réussir concours bu sélectif liggéey section de recherche liggéey gendarmerie lu ëpp juróom-ñetti at ñu sacrifier carrière kooku est-ce que di ngeen nangu tey lu ëpp ñaar fukki bakkan root ci ay wax waxi naxasakandang ñu xëy na leen viole boobu existeetul menace de mort existeetul

tey bu ñu bu ñu xeexulee nañu xam ne suñuy sët ñooy waraat amaat beneen nit bu mel noonu mais ñun moom sacrifié nañu à jamais est-ce que commande politique benn nit boo xam ne nee na woote na dialogue dialogue ba ña sa teew ñu si ëpp am nañ plus de soixante ans soixante-cinq ans dialogue ba ña sa teew xam nañ ne askan wi désavoué nañ leen maanaam askan wi bëgguñu leen dialogue ba ña sa teew. ñoo la gën a xam ne élection bu démocratique bu amee ci réew mi askan wi président Ousmane Sonko la jox bopp mais nee nañu par force ñoom dañu leen gouverner par la force est-ce que di ngeen nangu ñoo ñu continuer di leen gouverner te ku ci nekk compte bancaire ay centaine de millions moo ci nekk ku ci nekk doomam mu ngi taxawaalu oto boo xam ne 50 millions wala 100 millions lay la la jar te loolu liggéeyul ko Sénégal. parce que du investisseur ku ci nekk am nga sa club homme d'affaires yoo xam ne ñoom ngay jox ay marché wala ñooy xalaat ci yow ne ëllëg boo faluwee di nga leen jox ay marché ñi lay financé ngay nekk ci benn bambu laa ak gundaandaat yéen ngeen toog di seetaan période bii ñuy wax ak yéen maire bi doon jaay caaf fii nii Liberté 6 liggéeyul démb liggéeyul bërki démb liggéeyul tey parce que Macky Sall moo bëgg a tere Ousmane Sonko mu bokk ci élection yi maire boobu kam moo koy joxel dépense pour njabootam période bii may wax ak yéen ñaata école ñeu tej dëkk bi boy dox da fay melni dëkk bi kenn nekku fi tabaski sax bu nit ñi delloo seeni village Dakar melul ni parce que man capital bi fii la dëkk pour wan len ne benn bëgg-bëggu nit moo xañ réew mi jàmm gouverneur bi jël décision ne leen nañu nañu nañu nañu tere réew mi ñu liggéey ñi nga xam ne dañoo yor seen cag-cag di ci liggéey di am 2000 francs 3000 francs par course ñi nga xamné dañu yor sen jakarta mënoo leen tant amul bëgg ci Ousmane Sonko motax chaque procès bu amé mu sommes leen liggéey pendant liggéeyuñu mais ku ci nekk Nous mu fa am ay millions di jël di yobbu di nos ci ay boîte ak ay hôtel ñun ñu a di kon ñaar ñett fan ba fan plaisir quelques jours mën nañ ko sacrifier pour réew mi à jamais li wane ne ñun wa Pastef luy wane ne président Ousmane Sonko li muy woote mooy dëgg mooy système bi yépp autant de violence bi ñuy exercer ci mom da ngeen mës gis acteur politique Sénégal bo xamné ne boo wuy procès dañuy barricade kërëm Sénégal ban acteur politique ta nak acteur politique yi fi mel no xamné ci meus ak ci jigéen mën nañ leen topé lu né parce que ñun ay ndaw nañ xam nañu dëkk bi waaw xam nañ fu appartement meublé yi nekk xam nañ ña sa

bu ñu tribunal buy até moy ordonné né nañu confisquer yamba bi nañu ko détruire pour police wala gendarmerie mën ko def wala kenen ak kenen ci ay organu état té lolu ay produits yu illicite la ay stupéfiant la waxuma la nak alalu nit ay téléphone portable am ay documents am ay matériel am ñu confisquer ko arbitrairement motax tax ma leen wax né barricade yooyu ñu def fofu nonu bu fekkee nangu nañu Macky Sall réussir ko fi mu desaat ci kër président Ousmane Sonko pour vingt quatre heures wala pour quarante huit heures ma xam ne ñun ñëpp nañu nangu mu takk ñu buum ci jaam buumu njaam ñu desaat suñu réew nekk ay esclave wala ñu gàddaay génn réew mi te réew mi mënuñu koo gàddaay kon nag yow mécanicien bi nga xam ne tey sa atelier na yow jeune nga xam ne da nga doon dem commerce ji Dakar tey mënoo dem commerce ji wala tëj nga sa place à partir de 10 heures yow mi nga xam ne Colobane nga nekk marchand ambulant tey mënoo jaay parce que Macky moo bëgg a tere Ousmane Sonko parce que complot sordide mu bokk ci élection présidentielle maa ngi lay woo ci ne tant que Macky Sall régime am jugee wu bul xalaat ben yoon li nga am jàmm te nak li am ci dëkk Afrique centrale mo fi am moy bu ñu ci bop réew mi da leen di ne Ousmane Sonko li mu incarné ci espoir ci mbolo réussir nañ par une commande politique ay quelques magistrats teju sen bureau tan len ni bokk bu ëllëgee réew mi lu leen neex lañuy def parce que dañuy naan am nañ sentiment d'impunité manam luñu def dara du len ci fekk ma tay nañuy gouverner réew mi kuy boy booy booy dawal cak-cak sax mën nañu xey créer une société C'est une nit ku bokkul clan doo liggéey ci benn activité ñu lay jox ay salaire yu misérable te loolu am ngeen ci ay exemple yu patent ci réew kon l'heure est à la libération définitive du peuple institution yi fi nekk ñun ñoo ko fi def policiers yi gendarmes yi di sol tenue wala ñu yor ay armes wala ñu sol ay blindé wala ñu yor ay auto, gasoil bi essence bi bu nekk ci oto boobu ñun ñoo ko ci def suñu xaalis la est-ce que dinañ toog di seetaan loolu duñu duma te suñu alal la woon ñu jox leen ko pour ñu protéger ñu mais léegi protéger tuñu est-ce que di ngeen nangu ay nit ñoo xam ne tekkiwuñu dara jànguñu liggéeyuñu ay nit yu samba boy nañ ñi xamné ñu ay taxawaalukat ñooñu ñoo war a sacrifier suñu avenir parce que dañ leen jox quinze mille francs wala 20 mille francs par jour muy ay nervi nit ñi nañu jël seeni matuwaay parce que ay voyou ay criminel bu ñu naree dal sa kaw da nga war a défendre sa bopp loolu yoon moo ko wax te mooy légitime défense kon maa ngi woo askanu Sénégal yépp particulièrement jeunes yi suñu maintenir la mobilisation ñi dee ci événement mars yi mais est-ce que ñun dañ leen gën est-ce que dañu war a dee ci maali foro ñi nekk ci kaso yi nekk plus de 500 personnes est-ce que ñun dañu war a toog rek di lekk di naan amaluñ benn njëriñ réew mi ñu jàpp ne ñoom dem nañ fa ci foro ñu def fa 10 ans 20 ans parce que li ngeen ñu toppee ku ci nekk si ñoom lu ci ëpp si ñoom 10 ans 20 ans mën na leen ci fekk ñun ñu continuer toog ku ne sa bopp war nga xool ak sa miroir sa bopp. xam ne question bi nga war a poser sa bopp tey ju guddi bu dee nelaw am na booy nelaw même bu dee une heure xalaatal nga ni yow lan nga def ci xeex bi ku doon def cent francs, defal mille francs. ñi nekk ci diaspora bi ak ñi nekk ci réew mi ku ne am na loo mën a def ku ne xam na loo war a def xalaat ko togg ko liggéey ko pour ñu libérer peuple sénégalais ci loxo yi nga xam ne ñoo ko yor parce que il faut refonder cette république parce qu'elle est complètement à terre maa ngi jéggalu ci guddal bi di leen sant di leen gërëm di leen woo à la mobilisation et à la résistance wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh